ñàkku jën gi ci biir géej gi loole bokk na si tuuma yi nga xam ne gàllu nañ ko ci ndoddam lu jëm ci wàllum ñàkku ndox gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew ndaw ñi nga xam ne ñooy jël gaal gi di dem ca bitim réew tuumaal nañ Macky Sall ne moo taxawul ab politique bu jëm ci wàllum ndaw ñu amum xëyee loole ay tuuma la waan waaye nag démb journal bi di réew mi quotidien nee na am na ay ministre Macky Sall yoo xam ne démb jano nañu ak taskatu xabaar yi doon wax ak askanu Sénégal doon ko weddi ndax Aliou Ndoye nee na amul benn bateau chinois boo xam ne ma ngi ci waaxu Sénégal te Sénégal jaayu ñu géej gi amul benn accord de pêche boo xam ne Sénégal daf ko jaay lu jëm ci wàllum émigration clandestine bi Dame Diop nee na nag du caagi ne ñàkku xëy gi moo tax ndaw ñi di jël gaal gi lu jëm ci wàllum ñi nga xam ne ñoo ciy dee ministre Antoine Diome nee na état bu Sénégal nekku fi di wax ñaata ñoo dee waaye nag état bi dafee nekk di wax nag ana nan la ñuy def ba lijjanti jafe-jafe yi nga xam ne askan wi am nañu ko ba dootuñ dem ci géej gi lu jëm ci wàllum ñàkku ndox gi Serigne Mbaye Thiam daan nay wax ne fii ak 2021 maanaam ñàkku ndox gi moom mënut a jeex ci réew mi ba pare nag tuumaal ñi nga xam ne ñooy waa kër Abdoulaye Wade ñi nga xam ne ñoo yore woon réew mi yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na Félix Antoine Diome lu jëm ci élection locale yi amul lenn lu leer amul lenn lu leer loo xamante ni Antoine Diome wax na ko ci ba tey ci biir journal bi muy saar mi nga xam ne moom lañ dénk Sénégal yi nekk bitim réew démb moom nee na Sénégal amul benn accord boo xam ne Sénégal signé na ko ak réewum Espagne yéen a kaay gi Diouf Sarr nee na nag jàngoro ji nga xam ne moo feeñ sa caaro yi du jàngoro joo xam ne dafay wàllaate te lu toll si junni ñoo amee mën nañoo wax ne ñëpp wér nañ yéen a kaay gi délibération Abdou Karim Sall démb bokkoon na si ñi nga xam ne ñoo janoo ak taskatu xabaar yi daan wax ne jàngoro ji nga xam ne moo feeñ sa caaro yi moom dafa njort ne carburant bi la bi nga xam ne moo tuuru ci géej gi ak fiil yi nga xam ne moom la nappkat yi di jëfandikoo yéen kay gi di suddu ko di jee moom li mu gis ne na gouvernement bi dañu doon show démb maanaam xumbal la gouvernement bi doon defa ndax lu jëm ci wàllum importation suukar si ministre Assome Diatta daan nay dal bu baax a baax ci compagnie sucrière sénégalaise ñi nga xam ne nag ay doomu réewum Sénégal lañ abbu gaal gi dem ba Espagne muy sar nee na état bu Sénégal signéwul ay accord ak réewum Espagne ngir ñu delloo si leen nee na Fatou Tall ministre bi ñu dénk ndaw ñi démb bokkoon na si ñi doon janoo ak taskatu xabaar yi nee na lu jëm ci wàllum xeex émigration clandestine bi état bu teg na ay projet ak ay programme ngir ndaw ñi jëm ci wàllum ñàkkum ndox gi jàba jonge Serigne Mbaye Thiam waa kër Abdoulaye wa la tuumaal laas yéen a kaay nee na Serigne Mbaye Thiam waxul lenn lu leer loo xamante ni maanaam askan wi mën nañu ko jàpp te Serigne Mbaye Thiam sax dafa dëggal ne état bu Sénégal dafa tële ngir nag régler ñàkkum ndox gi nga xam ne moo am ci réew mi élection locale yi Antoine Diome moom nag la mu wax daal suuree wut ak dañuy dàq élection yi yi gën naa lambeeral xel yi Antoine Diome nee na amul benn app benn dat boo xam ne jàpp nañ ko ngir organiser sa élection yi lu jëm ci wàllum njënd ak njaayum gerte gi Moussa Baldé ministre de l' agriculture daan nay wax ne ren ji mbay mi nangu na campagne bi ñoo ngi xaar lu toll ci six cent milliards yéene kaay gi di laasa nee na état bu Sénégal daal bu ñu waxantee dëgg démb dañoo dem doon weddi ay tuuma yéene kaay gi di Le Quotidien nee neena en tout cas daal lay yi bëri na explication yi daal démb woon na loola yéene kaay di critique daal di xëy wax ne démb gouvernement bu Sénégal am na ci ministre yoo xam xam ne wax nañ lu toll si ñetti waxtu trois heures de temps sans convaincre maanaam waxuñu fa lenn tâtonnement làmbatu la ñu doon def ak nag wax joo xamante ni dara leeru ci yéen a kaay gi de la Soleil nee na état bu Sénégal démb leera na lu bare bare bare ba pare nag dalal na xel yi yéen a kaay gi de la Tribune nee na démb li nga xam ne moo amoon ci ministre yi nga xam ne ñoo doon janoo ak taskatu xabaar yi bu doon examen mën na ñoo wax ne am na ñoo xam ne jàll nañ premier tour am ñu jàll deuxième tour am ñu ñu ajourné démb am nañ si ay ministre yoo xam ne wax nañ lu xel nangu am nañ si wax ay waxu picc ñeneen ñi ay waxi ay kasaw kasaw la ñu doon wax yéen a kaay gi du source a nee na su passé sol gu rafet gi nga xam ne démb ministre nañ ko maanaam solu nañ sol gu rafet rafet mel ni ku nekk ci 31 waaye nag en tout cas daal discours vide la waxuñu fa lenn waxuñu fa lu yaay askan waxi kasaw kasaw ak waxi picc la ñu doon wax ndax ki nga xam ne mooy Antoine Félix Diome émigration clandestine bi waxut ñaata ñoo ci faatu élection locale yi waxu ci benn mi daal gudd gàtt moo ci gën état ñu xamal laan ñu borom mi di Macky Sall démb décoré na patronat bu Sénégal président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES ak Beydi Agne mi jiite conseil national du patronat ak Abdourahmane Ndiaye mi nga xam ne moo jiite Sagama ñii nag président Macky Sall décoré na la niki démb nee ma grand officier de l'ordre national du Lion président Mbagnick Diop ci biir yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na président Macky Sall ak taxawaay bi nga xam ne amee na ko ak ni mu ñu décoré loole nag dafay firndeel bàyyi xel ak attachement bi nga xam ne am na ko ci secteur privé bi waaye tamit firndeel na xaritoo gi nga xam ne dox na sunu diggante te nag lii dina ma gën a ñaax gën maa yokk taxawaaye ngir ma gën a yokk samay jéego yéen a kaay gi de la témoin xëy wax ci évasion fiscale bi nga xam ne Sénégal dina ci ñàkk at mu jot lu toll ci cent soixante-dix milliards yéen a kaay gi de les échos nee na am ñaari góor jigéen ñoo xam ne ñoom la ñu bett ci grande mosquée bu Dakar ñuy siim seen mari ngaañe yéen a kaay gi di sunu làmb nee na Modou Lo na def doucement digganteem ak Ama Baldé ndax dafa mel ni Ama moo ay ci mburu parcelles yi stade yéen a kaay nee na Bayern City Liverpool ñoo ngi ci buntu huitième de finale